nga xamee ne kii du préfet de Dakar bañal na leen ab dox ñaxtu bu ñu dëgmaloon ni ki démb ñii di agent contractuel établissement public de santé yi génnaat nañ di lu doxalinu ministère bi ñeel indemnité de logement spécial et complementaire yi. nee na ñii ngay fay ñeneen nit bu leen fay waaye nag li ñu ko bugg xamal mooy lonkal bi en tout cas président bu mu jox xaalis bi lonkal bi amu ci woon bu mu ñëwee ci moom. ministre des finances amul lonkal bu mu ko ci defal lonkal bi su amee ci biir ministère am la kon nag na xoolaat service am moom en tant que ministre tutelle lu ëpp juróom benn junne agent yi nga xam ne dañ leen bàyyi loolee waral ñooy laaj ministre bi ay leeral dégg nañ sax mu naan xaalis bi delloo na ko ministre euh, du budget du finance kooku mu woon foofu taxaw mais ñun lu ñuy jaaxal mooy mais mai 2022 la woon moom moo def recensement bi 8 milliards ñëw na nee na lonkal nañ ko séddee nañ leneen mu delloo ko 2023 kon lu tax budget boobu ñu koy renouveler waat. ñii di waa Sénac nag di sàkku ñu gën a yaatal indemnité bi ci bépp agent te buñ ci amal benn xaj ak seen te itam di xamle ne donte sax marché bi bañ nañ ko du tee dinañu woyal seen combat ba jot li ñu bëgg.